xaala yàlla ne ihbitu ca peedu leen baadukum lenn ci yéen li baadin ñel ña aduuna ay noonu la ñuy doon muy adam iblis jaan tabarakallah wala lenn ci sa njaboot de noonu ñenn ñi la ñuy doon walakum ñeel na leen fil ardi ci aduna bi mustaqarrun saxuwaay mooy am ngeen fi ay logement yoo xam ne te ngeen di nekk di fi nekk di fi nekk ba keroog yàlla di ko jeexal mu jeex Uh-huh. wa mataaxun ak xéwlookaay uh-huh. di dundeekaay uh-huh. ilaa xiin ba jamono ba ngeen war a dee xaale ci suuf xaale yàlla ne fiihaa daal tax yow na daa ngeen ci dundee wa fiihaa ci suuf itam tamutuuna ngeen di faato wa minhaa ci suuf itam tuxrajuuna lef leen ndi génnee ci ngeen di dekkee bi maanaam yaa bani aadam doomi aadama yéen laay wax te kon ñun la jàkkaarloog mm-hmm. bàyyil xel yàlla mm-hmm. la mu euh, santoon aadam mm-hmm. ak la mu ko tere loolu tere mooy bañ a mooy mu ne yaa bani yéen doomu aadama yi yéen laay wax xadaan zal naa dëgg-dëgg wàccee nañu aleykum ci yéen <coughs> libaasan koddaay libaasul aarifin dafa am comme ñoom lamiñ gi seen libaas mooy lan mooy libaasul maarifa koddaayu xam borom bi walil muhibbiin mm. ñoom seen libaas mooy lan mm. mooy almahabba mm. ñi nga xam ne dañu sopp yàlla namm ko lool seen libaas mooy lan asawku noonu la ko adul ishaaraat jaaree dégg ko ñenn ñu ci ne dañoo am koddaay loo xam ne ci lañuy sukkandiku moom la leen yàlla woddee mm-hmm. dégg ko baax waaye nag libaas yi ci gën nag mooy bi taqwa ñenn ñi libaas comme sama kalaas gi moom mooy libaasu la awaam mm-hmm. alhidaaya képp la nag mm-hmm. ñun ci boobu boobu lañ toll mm-hmm. libaasu taqwa comme ñoom koraxe gi nag di xawaas yi ñoom xawaas yi di way jagleel yi di ñoom ñoom kilifa yi di aarifiine yi ñoom ñoo am taqwa ñi nga xam ne ñoo am libaasu hayba ak wegeel kooku ñoom la min sàll ñee di aarifiine yi ñoom moom boobu libaasu siina nag li ahli dunya fa jazaakumullaahu xayr di ahlu dunya Ibrahima yaa ngi mooy xool de ñoom ñoom moom boobu tabaarakallaahu kon ñoom ahlul isaaraat am na neneen nun ko déggee nu bokkut ak col ci kaw rek de sol yére rek de doon solu yére sax baax na waaye ëpp noonu dégg nga mm-hmm. libaasan yu waari mm-hmm. dana suturaal mm-hmm. saw seen ay ñaaw ñaaw seen ay sekkere seen ay awra wa ak lépp loo xam ne dangeen kay taaroo sol yére tabaarakallaahu sol ci bu booyaat booyaade daamine ko def ay ñama-ñama ca ay perak yu nga ci gis léegi ñooñ jamono di def waaye yàlla ne koddaay yëpp baax na de waaye wa libaasu taqwa koddaayal ragal yàlla ku koddaayu ragal yàlla comme noonu ah, ahlul isharat firee ko mm. zalika koddaayu ragal yàlla daal xayru moo gën fuuf mm. zalika loolu mm. min ayaati ah, moo gën fuuf leneen lu dul moom bi maanaam leneen lu dul moom moo la gën zalika li ma fi tuddal min ayatillah laallahum ndax la ñoom nit ñi yatazakkaruun nu waaru bu baax a baax dégg nga yaa bani aadam mu santaat ñu terewaat ñu mm-hmm. lam santoon aadam mm-hmm. lay santaane mm-hmm. yenent bi nag ba mu xamee ne mbir mi moom ci ragal yàlla la ah lam jàngale woon ci hadis ba yàlla du xool seen melokaan yeeg seen koddaay yeeg seen sañse yi de li muy xool mooy xol bi ëmb sañse gi ba xam nu mel bu sellee baax na bu sellul nag moom saful yàlla yaa bani aadam mm-hmm. yéen doomu aadama yi mm-hmm. laa yaftinannakum mm-hmm. rikki lillahi wa rasuli bu leen sànq bu leen sànq réeréel leen a seytaanu de seytaane moytu leen ko téere yi dañuy wax ne daje na ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom iblis yonent bi ne ko dama bëgg nga xamoon ma tey ñen ñooy say noon ak say waa parti say militant mu ne ko yow de samay noonu yaa ci jiitu yow sallallahu alayhi wasallam yaa nekk ca bopp ba jiite leen mm-hmm. yaay kilifa gi mm-hmm. samay noonu coalition bi yaa ko jiite mm-hmm. ñaareel ba mooy mu ne ko imaamun adil <coughs> njiit loo xam ne dafa di neex na ma trop man iblis ak ku woomal ba pare mun boppam ba pare modeste ànd ak ñëpp kooku it bañ naa ko trop maanaam neex na ma trop daal maanaam bañ naa ko bi maanaam la daal taajir boo xam ne saduq la mm-hmm. wala sadiq la mm-hmm. commerçant boo xam ne mm-hmm. duy fen ca biir njaay ma muy jaay lépp dëgg lay wax bu fekkee original la daan laa bii original bu dul original muy la bii du original bii màggat na bees na màggat na nangam nangam bii lenn lu ne da wax daal mu leer iblis na kooku jéppi naa ko trop akan borom xam-xam buy toroxlu ci xam-xamam ak kan hmm. jullit boo xam ne fu mu fekk mbokkam jullitam laay biir ko hmm. ak kan jullit boo xam ne fu mu fekk nit hmm. yërëm ko ak kan koo xam ne fu mu toll dafaa taxoo tuub ak kan koo xam ne day sàmm ci lu yàlla xaraamal ak kan kuy taxoo njàpp foo toll njàpp lu toj nga dem yeesalaat leneen ak kan kuy bëri luy saraxe ak kan koo xam dafa rafet jikko ak kan kuy jëriñ nit ñi kuy jàng alquran di nga nafar ak mm-hmm. kan kuy taxawee guddi maanaam kuy def qiyaamul layl mm-hmm. ñii de moom si mm-hmm. samay noonu la ñu bokk de ñii de moom maa ma leen di moytu sama kéem tolluwaay kàttan mu ne ko ñi nga xam ne ñoo bokk ci coalition ñi nag ñan ñu mu ne ko buur bu jàng chef d'état bu jàng neex la ma lool ku mën boppam ba pare di ngand loo ko réeréylu neex na ma lool commerçant ak boo xam ne fu mu tolluy kàcc neex na ma lool naan kat boo xam ne du wàcc yéegi rek neex na ma lool lekkatu njistalkat neex na ma lool lekkatu riba neex na ma lool ku am alal bañ a génne asaka neex na ma lool ci sama coalition la bokk ak koo xam ne tabaarakallaahu day xeex te la muy xeex yàlla taxul noonu kuy guddal ay mébét it neex na ma lool ndax mébét yoo dana tax mu fàttee jaamu yàlla iblis ba mu la teeg yenent bi yii la waxanteeg moom nekk ñii ñooy samay gaay ñi la samay noon lañu mm-hmm. kon ñun kenn ku ne war na xam nan nga taxawee ci moom kama xarajaka comme noonu naka la génne woon abawaykum mm-hmm. min aljannati janna aljanna mm-hmm. yanzi'u mm-hmm. dana rocci dindi anhuma ci ñoom ñaar libaasahuma seen ay koddaay waa comme aadama mu nekk ci biir lañ manti mantee ba génne ko waaye yow mi ci biti nag nga xam ne dugagoo yow fooy jaar ah xool leen ko rek ki nekk ci biir lañ manti mantee ba génne ko ah xanaa naan tey faju <laughs> Eh, innahu naka moom iblis mm. yaraakum da leen di gis xoo mm. moom mm. wa xabiruhu ak i kurélam min xaysu laa tarawnahu foo xam ne yéen mënu leen leen di gis waaye nag xam nga iblis moom ak i jinne yeeg yooyu ñoom mën ñoo gis te ñun mënu leen a gis waaye ñoom itam yàlla mën na leen a gis mënuñoo gis yàlla comme noonu la demee nag demal jël rek sa bopp dénk ko yàlla moo tax inna kayda seytaani kaana daifa loolu rek la dénkal sa yàlla rek hmm. kon bu boobaa tous la dul mën hmm. innaa yàlla jaal naa defal nañu hmm. ashayaatiina saytaane yi awliyaa ñuy méngoo lillazina ñeel gaa yi nga xam ne laa yuminuuna gëmuñu iblis yàlla moo leen booleeg ñooñu ba tax na wa idaa faalu ndegem def nañu faaxisatan lu ñaaw bokkaale yàlla def naka su noona xaalu ne wajat naa fekkoon nañu abaana maam ñoom alayha ci ñaaw teef yii ak bëgg àdduna gii ci lañ nekkee lañ leen fekkee ñun ñu ànd a ak ñun wallaahu yàlla amar naa sant nañu bihaa ci ñaawteef bëgg àdduna bokkaale yàlla lii la gaa yi wax yàlla ne déet man kay duma santaane yooyu xul leen inna allaha naka yàlla laa ya'muru du santaane bil fahshaa ci lenn lu ñaaw nag ah attaqul ndax da ngeen di wax alallaahi waral yàlla ma la taalamu ndax da ngeen di wax yàlla loo xam ne yéen xamu leen ko loolu laa yaakaar na xul waxal ne mm. amara santaane na mm. rabbi sa boroom mm. lépp def kaa santaane bil xist ci maandu kon su ngeen dee wax lu ngeen ma jubadiku jubadiku na ngeen maandu ci wax ji ngeen di wax nag waa kii mu taxawal leen jubale leen wujuhakum seen ay xar kanam seen ay jëmm jubale leen ko inda kulli masjidin fas bépp jàkka na ngeen fa julli waduuhu jaamu leen yàlla ci jàkka yi muxlisina mbir moom ngeen di way sellal lahu ñeel yàlla mm. addiina mm. jaamu gi ngeen koy jaamu mm. moom rek naka jar waaye keneen ku dul moom jaru ko de te bëgg naa ngeen xam ne kama badaakum kon naka la leen sosee woon bindoo bindoo leen leen ko moom yàlla nga xam nekkul woon la leen di delloo si waate ngeen dekki ne fariqan am naa parti ci yéen doomu aadama yi hada gindiku nañu jaar ci yoon topp li yënant bi nekkee woon ñu di ko jëf waaye wa fariqan am na kuréel xakka mm. war na mm. alayhim ci kuréel boobu mm. ak dalalatu ak cànkute akuk réer nee na am na ci nit ñoo xam ne yàlla dogal na ci ñoom ak réer akuk cànkute yàlla mu fekk bokkuñu ci innahum naka ñoom ñooñu ittaxasu jàppe nañu ñoom ñooñu réer asayaatina saytaane yi awliyaa ñuy seeni kilifa di leen déglu guddeeg bëccëg ñoo leen di jox ay ordre ñu jëfandikoo ordre yooyu min duy laa bàyyi fi ordre yàlla wa yaxsabuuna nag ñoom ña ànd ak saytaane ñuy joort mm. yaakaar ne annahum naka ñoom kese nag muhtaduna mm. ñoom dong ñoo jaar yoon keneen ku du ñoom jaaru yoon mm. yaa bani aadam yéen doomu aadama yéen laay wax ñun ñii lay waxantee xusu jël leen zinatakum seen ay taar taarlu seen yére yu rafet yi ak lu ngeen di suturaale seen yaram jël leen ko ay da kulli masjidin fas bépp jàkka su ngeen fay dem seen leen yére yu sell te jot te bàyyi peew yi ak ceg daawun yi hmm. xar sànni yi hmm. dégg nga maam hmm. xottiku leen yi yëpp ngeen bàyyi su ngeen ñëwee ci jàkk ji na yére yi jot te bu te bu maar caadi bu mu ne kekk na mbarum fetal comme la suñu haadi doon wax rek suñu haadi turé bu mu mel ni mbarum fetal laa yasifu wala yasifu waaw na kekk seere yaraax déedéet kooku mu ñu ne jaaduwul yére jullit du mel noonu dégg nga mm-hmm. kon loolu dañ ci tere mm-hmm. kon sooy dem jàkka mm-hmm. da def ca bokk nga seet la nga gën a fonk la gën a yiwe mel ni boo doon seeti sab sëriñ wala mel ni son excellence bu la mayoon audience tey nga koy seeti wala koo respecté daa nga sañsewaat laalaat yëpp lépp loo xam ne daal xet gu neex laak sañse bu rafet tabaarakallah kon yooyu jëmee ko ci yàlla te yàlla nag moo lay may audience wa kulu lekk leen mm. wasrabu ngeen naan mm. wala tusrifu te bu leen fër mm. comme niñ ko waxee woon léegi innahu naka moom yàlla laa yu bëggul al musrifiin yàqkat yi de xul na leen yàlla nag yi neex yi ci kaw suuf ak yu rafet yi pour jullit ñi la yéeféer yi dañu ñëw rek langaamu ci ñi gëmul yàlla taxule ko taxu ko jub waxal ne man xarama ana kan mooy xaraamal ziinatallahi taar taari yàlla yi hmm. allati taar taar ya nga xam ne hmm. axaraja génneel na ko moom yàlla li ibaadihi ñeel jaamam yi hmm. oto yi rafet yi kër yi rafet yi alali adduna yi rafet yi waa ana kan moo koy araamal ci jaam yàlla yi wa tayibaat ak yi tey ne kan moo moom yooyu suñ la ko laajee xul hiya yu taaru yooyu ak yu rafet yooyu yu jekk yooyu lépp adduna lillazina amanu ñeel na jullit ñi mm. kon ñi gëmul yàlla mm. dañoo ñëw rek organisé wu rek sàcc ba féetewoo yëf yi ba nga yaakaar ne ñoom dongo ko moom mm. déedéet ñoom dongo moomulu ko de fil xayaati dunia dégg loo nee na ñun ko moom fii te ëllëg ñun dong ñoo koy jagoo ñoom ñi nangul soon yàlla duñ ko mos far ndax sawar nañuy dugg xaalisatan mbir moom ñuy way jagoo ko yawmal qiyaamati bis taxawaay ba mooy jullit ñi ñooy moomaat yu jekk yeeg yu rafet yi yëpp ëllëg ñoo koy moom dégg kadalika naka nii mm. nu fassilu dañuy leeralee mm. al ayaati aay mm. li xawmi neel nit ñi nga xam ne yaalamuuna xam nañu xamuk jëriñu xul mm-hmm. waxal na innama xarama du ma ludul xaraamal na mm-hmm. rabbi sama borom yàlla daal déglu leen lim xaraamal ci jullit ñi lim xaraamal ci nit ñi mooy alfawaahisa ñaawteef yi njaaloo ak yu ni mel rey nit ak yu ni demee wa maa zahara la ca feeñ hmm. minha ci bàkkaar yi yàlla def ko tere hmm. wa ma ak la ca nëbbu hmm. nga xam ne mooy yàlla goo nëbbu la di ko def yàlla daf ko tere wala isma ak yàlla daf ko tere wal baxi ak mbewte yàlla def ko tere bi kaay di la xàkk ci lu dëgg dogal nit ñi di nangu seen alal dina yooyu yëpp yàlla ko tere waan tusriku ak ngeen di bokkaale itam billaahi ak yàlla maa ak ci mbir yoo xam ne lam yu nazul wàccewul bi hii ca bokkaale ga sultaan benn preuve buy tax ngeen mën a sukkandiku ne yàlla daganal na bokkaale gi waan takulu ak ngeen di wax itam alallaahi waral yàlla ma la taalamuun yàlla itam xaraamal na ci yéen ngeen di atte benn atte boo xam ne yàlla attewul loola wali kulli ummatin nee na wali kulli ummatin ñeel na bépp xeet bépp mbooloo ajalun dele dig boo xam ne duñu ko romb nee na fa ida jaa bu ñëwee mm. ajaluhum seen délai war a faatu mm. laa yastaaxiruuna du ñu tardé ke mm. délai ba saatan benn heure benn cerse bi gën a tuuti bu dee jotee dama ne da nga ko bàyyi dem dee yi waaye itam loo bëgg a bëgg a bëgg a dee te yàlla atteegul ci yow dee du tax it nga dee de wala yastaqdimuun du ñu jiitu heure ba benn cerse duñ ko ko jiitoo te dee jotagul ah déedéet bu dee jotee rek ngay dee yaa bani aadam mm. yéen doomu aadama yi mm. ñun ñii lay waxanteeg mm. imma yatiyannakum ndegam ñëwal na leen rusulun ay ndaw ay min minkum bàyyi ko ci yéen wala ñu fi wuutu yenant yi suuna ñuy nettali aleykum ci yéen ayaati sama ay aaya fa man ittaqaa képp koo xam ne teet na bàyyi bokkaale yàlla wa aslaha mu jëfam defee na yenent bi daan defee mm. waxee ne yenent bi daan waxee mm. falaa xawfun mm. deetug ragal alayhim di nekk ci ñoom wala hum den ñoom yaxzanu nu ñuy jàq mm-hmm. waaye wala dina gaa yi nga xam ne kazzabu wet dinañu bi naa sun ay aaya wastakbaru ñu rëy rëylu bañ jaamu yàlla wala bañ a nekk ci santaane yàlla yi ana ci aaya bañ ko gëm seen sawara leer na loolu kay jëru wax ulaaka yoola gaay mm. ashaabul euh, naa mm. ñooy waa sawara mm. hum ñoom xaaliduun way béel lañu mm-hmm. euh, fii haa sawara soosu mm-hmm. nee wa man aslamu kenn gënul mantooñ tooñ mi man ci koo xam ne dafa duural alallaahi waral yàlla mm-hmm. kadiban aw fen di askane yàlla bokkaale di ko askane doom sama borom nee na kooku daal kenn dàqu ko kacc aw kazzaba wala mu fen loo weddi bi aayaatihi ci alquran yàlla ji kooku kenn dàq ko tooñ ulaaka yoola gaay yanaaluhum daana leen jot nasiibuhum seen cër minal kitaab yi ca téere ba maalam bindoon ca lawhul mahfuz na ñii danañ fi am at sàngam daañ fi am wërsëg sàngam ak wërsëg sàngam mu nangam ak sàngam daañ ko fi am lépp daañu ko jot ba pare ba loola jeex ñuy door deey donte li ñu fi nekkee neexuma noonu la ñu nekkee xataa idaa jaatuhum dem ba ñëwal leen rusuluna mm. sunu ay ndaw mm. yatawafawnahum mm. ndaw yooya daañu leen faat di sunu ay malayka xaalu malaayika daañu leen wax waxu saboté dana waaw yéen ay na maa kuntu ana ana fan fu ngeen nekkoon ana la ngeen nekkoon kon te doon di ko jaam min duyi la la nekkoon doon ko jaamu te du yàlla ana yooya moo xam bant muñ sampoon la woon wala seen bakkan wala nit xaalu ñu ne ballu yooyu de sànku nañu an naa mm. wëris ñu ñun dal gisuñ yooya saa borom ne wa shahidu seede nañu mm. ala anfusihim fa seen bopp mm. annahum naka ñoom daal kaanu nekk nañu kaafiriin di way weddi seen boroom ah, li des ci nisif bi bëri na hmm? nañ puus ba ba mu yuuti nisif bi rek bu nisif bi jeexee baax na bu jeexul fa yem ñu yemale ko fa rek mm-hmm. dégg nga mm-hmm. ah, loo teg xaala de mm-hmm. xaala yàlla dana wax ëllëg yowmal qiyaama ne udxulu yéen ñi nangulu toon yàlla dugg leen fii umamin ci benn mbooloo boo xam ne xada xalat jàlloon nañu wéyoon nañu min qablikum li fi jiitu woon minal jinni ci jinne yi dégg wan naa wal insi mm-hmm. ak nit ñi mm-hmm. yéen ñëpp dugg leen mm-hmm. fi yi su ko defee comme par délégation la duggee sawara délégation bu dugg si rek rëbbu ñam fa fekk kullama daxala saabu duggee renteree ummatun aw xeet laana rëbb na uxtaha mbokkam mag mam fa fekk ci biir sawara wa délégation bëgg fa jiitu xatta ila ila daaraku dem ba ñu dabante fekkante mhm. fiihaa ci biir sawara mhm. jami'an ñoom ñëpp ñu rankaloo foofa mhm. su ko defee nag foofa ñoom ci seen biir da gis ña daan nax nit ñi ak ñañ doon nax ñëpp dajaloo ci biir xaalat wax na uxraahum tabaarakallaahu ña toppe woon di surga sa ñooy wax li ulaahum ñeel kilifa yi ci déggin bu gaaw pour noonu ña nga naan rabbana sunu borom mm-hmm. haawulaay kilifa yii mm-hmm. na sëmmi sëmmiiral nii mm-hmm. lu nu dal ñooma ñooma de ndax ñoom adallu naa sànkoon nañ ñu ñu raay bi mosuñ ñoo wax loo sant loo santaane mosuñ kaa wax loo tere mosuñu kaa wax ñoom kay seen bëggi bëggi bopp rek lan ñu daan wax ñu yaakaar ne noonu la ñuy guddee ko ba setal comme nag ñoo ñu yóbbee lii ñu dal soo ñuy duma benn Mm-hmm. duma leen fukk ñoom mm-hmm. faatim yàlla nga leen jox mm-hmm. azaban ay duma diafan yu ñu ful mais naar yi yàlla ne yéen ñëpp laay duma fukki yoon wax bi jeex na xaale yàlla ne li kullin képp kenn ca surga saa njaatige ñeel na leen diafun duma yu ñu ful walakin waaye la taalamu wa qaalal wax na ulaahum njaatige ya di kilifa ya wax nañu li uxraahum ñeel surga sa fa kaana nekkul lakum di leen ñeel mm. alay naa ci sunu kaw ñun kilifa yi mm. min fadlin benn mbaax mm. ñu ne yéen képp ñoo fi yam xaala yàlla na leen fa zuuqu mos leen al adaaba duma ya bi maa kuntum ci saabu la nga xam ne nekkoon ngeen taksi bu ndi ko fàggu nee na inna alladina naka gaa yi nga xam ne kazzabu weddi woon nañu bi ayatina sunu alquran ji wastakbaru ñu rëy rëylu anhaa ci alquran bañ ko gëm fa taxu deeful ubbil lahum ñeel leen abwaabu sama bunti asamaan yi mm. pour seen ruu dugg fa mm. yéeg fa mm. comme ni nga xamee ne ruuhu jullit ñi noonu lay yéegee kaw asamaan ruuh ñi wet yàlla du fa yéeg mukk mukk mukk moom seen ruuh fan la jëm day jëm ci si jiin te si jiin moom ca suufa suuf la ne ci jahannam wala yadxuluuna du ñu tabbi dugg aljannata aljana ñi wet yàlla duñ dugg aljana mukk xattaa yalija loolu dafa dem ba dugg aljamalu giléem fi sammil qiyaati ci bën bënu puso loolu mooy duñ fa dugg bën bënu puso ni mu xatee gileem ni mu ni mu tollo yàlla <laughs> fee gileem jaarewul ci bën bën bënu puso dugg duñ fa dugg loolu mooy duñ fa dugg rek kadaalika naka nii ñi leen fayee naji si la ñuy fayee al mujrimiin saay saay si lahum ñeel na leen min jahannama ca jahannama mihaadun ifonce wa min fawqihim nekk na ci seen kaw xawaasin ay pavillon wa kazalika naka nii najzi la ñuy faye azalimin tooñkat yi waaye wala si ne gaa yi nga xam ne amanu gëm nanu waamilu saalihaati ñuy defar tey ak naafila yi comme ñun julit ñi laa nu kallifu du nu togg ñun yàlla teg nafsan benn bakkan illa wusaha lu dul la bakkan ba attan ulaaka yoolee gaay ashaabul jannati ñooy waa aljanna ñi nangu loon yàlla ci biir ci biti seen place mooy aljanna aljana nag hum ñoom xaalidun way beel lañu fiiha ci aljana jar aljana nag nooneel ak mbañeel soxor ak iñaan naqari deret yooyu fii la xew waaye xewul foofa wa nazaana rocci nañu dindi nañu opéré nañu maa fii sudurim lépp loo xam ne nekkoon na ci seen dënn ya min xillin ci xeetu mbañeel ci àdduna saa borom ne lépp maa koy dindi tajri naa daaw mm-hmm. min taatiim ci seen suuf mm-hmm. al anhaar mm-hmm. wa qaalu ñoom julli ñi bu ñu duggee àljanna mooy ñun ñi daanu yëkkati kàddu gii alhamdulillah sant ñel na yàlla alladi yàlla ma nga xam ne hadanaa gindi nañu li haada ci jëf ju baax ji ba fay ñu ko wa maa kunnaa nekkuñ woon li nahtadiya di gindiku lawlaa an hadanaa laa bu ñu yàlla gindiwutoon mënuñoo jub mukk kon ñun duñ ci tiitaru dañuy ci koy sant yàlla xam ne lépp yàlla sama borom ne wala xat jaat ñëwaloon na leen rusul ay rusul rabbina su ndawi borom bil xàq ci dëgg su ko defee wa nuudu wooweef na leen foofa ne leen ani hee tilkumul janna jooje la aljanna uristumuha donn loo leen leen ko bi ma kuntum ci saabu la nga xam ne nekkoon ngeen taamaluun boo déggee mu ne aljanna donn lañ leen ko donn lañ leen ko mooy yenent bi dafa jàngale ne nit ku ne am nga kër sawara am nga ko kër aljanna yéeféer bi am na kër aljana am kër sawara jullit bi amee ko noonu kër aljanna kër sawara jullit bi nag bu demee aljana day jëlaale benn këru yéeféer ci aljana yéeféer bi bu demee aljana day jaale benn këru yéeféer fële ci sawara est que dégg nga wax bi ñu weccante ñoom ñaar mooy uristumuha bimaa kuntum taamaluun hmm. kon ca saabu jëfandikoo génn ngeen doon jëfandikoo santaane yi la leen yàlla fayaloon wa naada woote na mm. asxaabul janna mm. waa aljanna ñooy woo mm. asxaaban naar ndax dañuy gisante ah su ko defee waa daa daañu wax ne an ñun de an ci li am ba des mooy xad wajat naa dëgg-dëgg fekk nañu maa waadnaa la nga xam ne digoon nañu ko rabbu naa lépp lu ñu yàlla waxoon teg nañ sunu bët bi xàkkan mu nekk lu ñu waral ak waral daal di jàkkaarloo ñi nekk biir sawar na waaw yéen fa hal wajadtum ndax yéen it fekk ngeen mm. maa waada la digoon na leen ko mm. rabbukum waay la leen sama borom waxoon digoon leen ko ndax fekk ngeen ko xàqan mu nekk dëgg waay mm. xaalu waa sawara naam waaw ñun koy fekk nañ ko mu nekk dëgg nan ñu ko waxee woon kay gis nañ ko du muy métti na lool fa ñu jokkalante kàddu yàlla bañ daw yërmaande daw foofu mu mu jooruloo benn malaayika fa azana yëglu na jooru na mu azzin benn aji jooru baynahum ci diggante ñaari parti yi waa aljana ak waa sawara mm-hmm. mu ne hey mm-hmm. ñëpp xool ko mu ne an hey mm-hmm. laanatullahi rëbbum yàlla ala zalimin yàlla bum dañ di nekk ci tooñkat yi tooñkat yi ñoo ñan mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yasudduuna dañuy wañ ñi nit ñi an sabilaay ci diine yàlla ji wa yabgunaha ñuy utal diine ji ay wajan ay jeng-jeng ay sikk ak i ayib pour bañ nit ñu dugg ci te waxum ñoom ñi nga xam ne dañuy tooñkat yi kaafirun way weddi woon lañu bil aaxira ci alaaxira nanguwuñ ci woon dara war nañ mun taxaw noonu comme day sóoru waa aaraaf yooyu te watul du fi jeex nu taxaw noonu xam naa li ci des sax bëriwul wala nisif nisif bi moo def benn aaya ci def <laughs> eh, waaw wa baynahuma nekk na ci diggante aljana ak sawara xijaabun hmm. benn baaraas hmm. dégg nga ko bu baax hmm. benn miir wala en ah, miir boobu nag ci misaal suñ la wax day mel ne nga nekk stade rek kii xaar mbalit nu muy def day jàkkaarloo waa tali jàkkaarloo waa terrain bi waaw léeg-léeg rek police yi jaar fi moom gendarme bi mu tëb mun na ci dal lu ne di yàgg-yàgg ci biir la jëm moom mi taxaw ci kaw miir bi di yurdoo sàcc yàgg-yàgg ci biir stade bi la jëm waa aaraaf it noonu la ñu mel yàgg-yàgg aljana lañu jëm ña fay dugg nag mooy ñi nga xam ne seen jëf yu baax yu bon dañoo tolloo xale yi nga xam ne xale yu yéeféer lañu te dee ci kéeféer maanaam nekk ay xale yu ndaw ndaw daal ak koo xam ne dafa génn di jihaad taamu ci ndigalal waajuram tabaarakallaahu baaxee sa baay te baaxee woo sa yaay ba dee itam noonu rek lay demee waaw yooyu daal ñoo fay dugg waaye laaraa fi nekk na ca baaraas ba mm. rijaalun ay góor yoo xam ne mm. seen yëf yëf ju baax ak yu yiw ñoo tolloo mm. yaarifuuna da nga xam kullan képp kenn ñoom daañu xam ñoom aaraaf kullan képp kenn ci waal jëna ak waa sawara bi si seen ay mandarga wanaa daw woote na asxaab aljanna waa aljanna woo nañu ñoom waa aaraaf ñoo woo asxaab aljanna naan hee salaamun jàmm aleykum yàlla bu mu dañ di nekk ci yéen hmm. te ñoom ba ñuy wax loola hmm. yam lam yadxuluha tàbbeeguñ aljana hmm. léeg-léeg nag ñu yuux waa stade ñi ci biir rek di yaakaaraale te waxum ñoom yat moo na ñuy yaakaar ne bale dana am ba ñu dugg sadaqallah ñu jàng faati ak salaatul faati def kaay di ci yéen di saa salaam